Hey, we What's up viewers, you know what time it is, yan ham yan nakala, you know Takay atagay mene, right now moy monte By force, kum nahari moy lolo mm -hmm. Well, so what he wahinambi dafa mene kom like mene mo moy king me right now You see it famille dafa overshadow Jizzle ak ST so lii dugg la tan ma dama naa bàyyi yéen ngeen déggul ko seen bo pa ngeen wax wo masi comment session mi kom, loo len fil ku neka ak on idea am ndax taakaay yi bete bi ngi overshadow ST ak Jizzle wala na kala fa demee ku neka sia on idea am yéena Right now, Gambia attack by Monday by force. captain. You're never gonna have a bomb concert. Key City. Key City. Key City. Well, alright. Nyoko degandor. So wale malolen feel silly. Ndamge wane kom like mogena superior. This like ST right now. Or oh, nakala fademe.